asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Tivaouane di nuyu wa senegal yëpp di rafetlu seen teewaay tey xam naa droit de réponse ngeen koy def ndax nit ki buñ la sosalee normalement war nga mën a am droit de réponse maa ngi sant yàlla bu baax parce que terrain boobu mooy fi nga xam ne fa la maison de la jeunesse bi nekk ci ginnaaw maison de la jeunesse ce qui est prévu jusqu'à l'heure où je vous parle c'est un terrain de football avec un terrain de basket c'est ce qui est prévu là-bas il n'y a jamais eu de lotissement amul lotissement bu euh, conseil amul leneen maintenant il y a une partie bu n'êtes au fond bi nga xam il y a quatre parcelles qui sont là-bas ou cinq parcelles je ne sais pas je ne me rappelle plus sur ces cinq parcelles on avait fait une annonce en disant ici a beaucoup de problème qui souffrent na nga ñew indi ñu régulariser na loolu lañu defoon y a une certaine personne benn nit moo fi ñëw indi quatre anciens bo euh, attribution yi nga xamé ni mom lañ ko joxoon depuis le temps de Diagne si bi mu ñëwee joxe ko ñu teg ko sur place bi ñu ñëwee ñu xool ko ñu ne kat nañ ko jëlaat delloo ko delloo ko parce que bi ñu vérifier ba pare ñu ne kat nañ ngeen ko delloowaat terrain ñu delloo ko parcelles yi avant-hier ça trois jours conseil bi euh, am benn conseil municipal bu dugal papier bi moo ko jox en disant que dama def lotissement ma ne non defuma lotissement dama régulariser li nga xamee ni que moom waa ji moo ko indi muy Fall muy Adama Naar donc quatre parcelles yooyu lañu fa joxe espace bu toll noonu. est-ce que quatre parcelles mooy lotissement quatre parcelles yooyu rek laa fa donc vous faites quatre parcelles mooy lotissement kon lotissement laa fa mais nous xam nañu que quatre parcelles c'est pas un lotissement régularisation boobu ñu def faux. l'État tax ñu def ko aussi on l'a fait sur la base de documents clairs nets et précis donc ñun amuñu dara lu ñu la fa nekk na foofu bari na ay problèmes Il xam ni man maa demal sama bopp je suis parti moi-même sur le terrain pour regarder ba ma agsee ci terrain j'ai vu que travaux yi ñu doon def am na benn zinc bu ñu entreprise mu dindi ko parce que parce que il faut ñu clôturer ko pour ñi terrain de football loolu am na fa si ginnaaw école bi gis naa aussi ñoo xam ne nañ fa mur def nañ fa pour fatt benn yoon boo xam ni mooy ci donc dama demal ma benn doomu dama dem sur place gis donc problème bi lii amul lotissement foofu musta am lotissement donc bu nit ñi créer loo xam ne ni du dëkk nit ki booy wax da waxal ngir yàlla rek quatre parcelles li nga xam ni moom lañ fa doon régulariser depuis jaañ si mbeng la woon kon man amoo dara lu ma ci représenté bopp ainsi loolu mooy nekk ci place terrain boobu donc maa ngi jégalu quoi c'est-à-dire Thierno Ka c'est le chef de quartier je man bi may nekk maire falaa fekk jàkk ji falaa fekk daara ji falaa leen fekk nak yi ñi tak fofu moy nak yi nga xamé ni ga place bobu foog ñu tak nak yi moy kat moy kat parcelles yi ñu signé fi nak yi nek moy kat parcelles yi pour mu gëna leer quatre yi mi ngi yam ci fi ñu fi ñu tak nak yi fofu foofu la kat parcelles yi yem à part lolu amul leneen lu fa signé kon lolu leer na kon te kat parcelles yi signé lu mu ko ci arnoka Adama fa la signé donc gisuma kon ban relation la ñu mën a am ak Thierno Ka man Thierno Ka ñëwul si man gisuma ko bu ma ko gisee dañu chef de quartier laa gisee. waaye dama dañu ñëwoon terrain bi fooraay la woon toll cent mètres carrés yi moo nekk la maison de la nekk si ginnaaw jàpp nañu ni loolu dafa war a nekk utilité publique dafa war a nekk terrain sport boo xamante ni quartier bi ñoom ñoo koy utiliser donc dañu bëgg a xam rek précisément. lan moo si indi turu li ma bëgg a leeral Ndiaye Sy Mbaygue n'a rien à voir là pour man parce que document la boo xam ne depuis El euh, Malick Diop la woon ça ne date pas de Malick euh, de de Ndiaye Sy am na ci ay documents yoo xam ne de depuis Malick Diop la donc vraiment il faut que ñu bàyyi di jéem a teg cooro ci kaw keneen dama ne damay tii damay répété waat parce que bëgguma di wax ba pare di dellusiwaat ci li ma doon wax. tontu woon naa si lii ba pare mais dama si tontuwaat bu kenn tudd Diathie Mbengue parce que yoonam nekku si waaw je benn bi ci des mooy ñi nga xam ne ñoom administration day continuer administration du lu taxaw dañu def déclaration def ay ay annonce ni képp koo xam ni da am terrain booy régulariser indi ko ñu xool ko pour ñu mën ko régulariser Adama Fall indi 4 passé ça fait six mois 7 mois mi ngi topp si ñun pour ñu defal ko régularisation j'ai refusé j'ai dit du ko def tant que awma si lo xamné ne gisuma lo xamné document documents xamné moy tax ma def ko quand on m'a amené les documents j'ai fait la même chose je l'ai fait pour man c'est quelque chose de clair de net et de précis awmu leneen luma si def quatre parcelles motax ma né quatre parcelles yoy ñu ma signé bu fekkee moy lotissement sur 1 hectare ça veut dire que kon lolu nit ñi war nañu xamné que lolu wax bobu jubul muy ben benen bi ci dess espace bobu nga wax je suis commencé à dire que prévu privé de faire des terrain de football des terrain de basket moi j'étais clair que ça c'est la politique de la commune Ce n'est pas moi qui l'ai décidé amul ben dom aadama bu mun a indi keuyit bu woné ni que jox nañ ko keuyit ci terrain amul qui ont des terrains litigieux de se présenter et de régulariser leur situation un certain Adama Fall est venu il nous a présenté des documents pour la régularisation on ne l'a pas fait de suite. On a attendu. Parce que quand on a fait le truc jusqu'à présent, on a attendu six mois. Les gens nous avaient dit que le délai qu'on avait donné pour que les gens puissent faire les déclarations était court. On avait donné un délai de 15 jours. Après, on a donné encore un autre délai de 15 jours. Ensuite, on est resté six mois avant de faire quoi que ce soit. Donc, on n'a pas eu de réclamation par rapport à ce dossier. Il n'y avait que quatre personnes. Sur un terrain de 1 hectare, 200 ou bien 1 hectare 400, je ne pense pas que régulariser 4 parcelles, c'est faire un lotissement. Et ces 4 parcelles qu'on a régularisées, on l'a régularisé sur la base de documents clairs. Donc on n'a pas de souci par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans cette zone, l'espace dont il parle, cet espace, on a prévu de mettre un terrain de football et un terrain de basket qui est derrière la maison de la jeunesse. C'est ce qui est prévu par le conseil municipal. C'est ce qu'on avait prévu au départ sur le conseil municipal. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a que les quatre parcelles-là que j'ai signées sur la base d'anciens documents qui existaient avant ma venue au niveau de cette commune. Et les quatre parcelles qu'on a signées correspondent à la place où actuellement il y a des bœufs et des vaches qu'on a mis sur cet espace. C'est la seule espace libre qu'on peut distribuer là-bas parce qu'on a mis des animaux. Or, la place des animaux, c'est dans le forêt, ce n'est pas dans, la, dans le quartier. c'est ça le vrai problème maa leen di remercier encore ci côté bob dossier Yajin bi gis na demb rek mo am ben sortie bu ci am dossier Yajin bi moo nekk nii lii dama bëgg d'abord ngeen xam ñun on travaille là ci depuis que man ma nek ci mairie bi dama ne kenn du laal ben tool té borom tool bi ñëwul signé convention ndax bo duggé ci toolu jambour te d'accordu len bu subaa bu problème amee yaax tooñ moom laa wax mom laay appliquer tamit biñu commencé liguey pour la première fois dañu commencé liguey parce que du benn promoteur mo fa nek y en a plusieurs ben côté bi liguey nañ ko presque ba mu jeex amul coow ken déggu fi coow mo nek ni moy premier dossier bi fofu 25 hectares ndax lotissement bi dafa yag dafa yag dama bu fekkee damay dellu si Genève ci archive bi lotissement bi am na cinq ans autori am na autorisation de lotir am na yëpp depuis 5 ans kon man bi may ñëw ak léegi ça fait 2 ans kon fii laa ko fekk promoteur yi may liggéeyu loo tamit ñoom ñooy nekkoon ci dossier bi kon ñoom it fii laa leen fekk kii mooy benn première partie bi mooy yi nga xam ni moo nekk ci kaw ñooñu liggéey nañ ko ba mu jeex presque fii li ñu fa bind fii du man maa ko bind dama leen di won ngeen di xam parce que tamit c'est trop nii la ñuy def protocole yi protocole bi nii lay mel seeni borom ñooy bind ñooy signé bu ñu signé ma signé bu ko defee ñu doog mën a laal sa to kii mooy premier dossier bi bii defa nañ ko ba pare ñi nga waaj a dugal tal yi amul benn coow kenn de histoire beneen dossier bi bii mooy OMVS OMVS e benn coopérative la boo xam ne dañuy jënd ay tool pour ñu lotir ko mu nekk si biir lotissement bi li ñu def ñoom dañoo jënd seeni tool ba pare dugg si lotissement bi kii yaa ngi nii seen i kayit a ngi nii ça veut dire amu ci kenn lii ko ko gis xam ni waa OMVS xam ma man moo ma mais ñoom it dañoo jënd boo leen xoolee fii yi nga gis décharge de paiement pour acquisition de terrain donc l'eau qui gis le nez rek day am vous ma filmer bu baax donc c'est borom ñoom C'est li li ci bir lotissement bi deuxième fi nga xamni mo am ñuy tout le temps tout le temps moy plan Je ma mu ngi tudd xaaral plan de lotissement bi moo ne moo mel ne moo nekk fii bi ñu defee relevé bi koo xamee ni am nga fi tool rek sa tur mi ngi si biir lii defaru ma ko de fii laa ko fekk du mu leer ça veut dire que koo xamee ni am na tool ci li nga xam ne ci lotissement bi la bokk rek am nga fi sa tur mi ngi si biir. ni niñ ko daggee ni nonu la toli bindo ci bir biir lotissement donc kenn ku ci nek bo ñëwee dañ lay signaloo né yow kat nga né man amna 1 hectare nga signé sa 1 hectare ñu bàyyi la sa morom ñu signé 1 hectare am kenn par kenn wa ban biñ ko défé ñu def ben premier liggéey ñu commencé liggéey bi ñu xey suba né dafa am ko xam ne dañoo dugg ci tolam yàq ko te fekk si ñëwul ñu jël dossier bi yóbbu ko tribunal tribunal procureur wooñu def enquête pour procureur wooñu ñu indi l' ensemble des documents administratifs du man fii laa ko fekk indi l' ensemble des documents administratifs teg ko jox ko l' ensemble des documents jox ko li nga xam ne moom la nit ñi signé parce que lii yëpp ay borom toolu ko signé du man maa ko signé fii li ngeen gis yëpp ay borom toll ko fi yëpp ay protocole ñii moom si ay protocole ak seen i suuf signé ko Diop mënu si dara am na yoo xam ne fii laa ko fekk am na yoo xam ne deux mille vingt la parce que bi lotissement bi commencé ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi doon signé kii mooy list bi nga xamee ni képp koo xam ne am nga fa tool sa tur ni bi ak sa surface bi nga xam ne moom mooy sa surface tool donc bu ñu lay signaloo dañuy jël li comparé ko C'est ce problème maintenant il chaque jour problème bu créer c'est toujours les mêmes dama bëgg nag xam wax dem nañ ci procureur gaay defal ko procureur de joxé wat instruction né commencé à leen biñu bëgg commencé liggéey man leen bàyyi leen ba ma def situation bi ba pare même malgré que procureur jox nañu feu vert bàyyi leen ma reprendre l' ensemble du dossier buñ ko reprendre jël ko segg ko tànn ñi nga xamee ne que signé nañ ba pare ñu dugg seen tool ñi ñi nga xamee ne que signé gu ñu ñu arrêté ba keroog ñuy signé dugg seen tool problème bi fii la toll dafa naa ne lii lu ko gën a leer amul ndax du lenn loo xam ne maa ko fi créé li ma fi fekk la war ko continuer rek kon nag vraiment damay bëgg aussi nit ñi aussi bàyyi xel loolu. foofu aussi comme ni may rek man dama wax ni tant que maa ngi fi xaw ma keneen ku tabax ci kaw tali dinañ toj sa sa li nga defar ku mu munti doon parce que du man plan d'urbanisme bi nga xam ni moom la ñuy teg ak plan de lotissement yi ñoo nanguwul ku tabax ci kaw tali tabax ci kaw tali mooy nit ñi fàttaleen loolu du ma ko nangul kenn dama koy wax tout le temps yàgg naa ko wax nit ñi dama caa dama ne koo ko tabax bay boo nga yóbbu ma tribunal parce que du état bi d'accordul nga tabax ci kaw tali ndax pour nga tabax ci kaw day fekk amuloo autorisation de construire ndax pour nga am autorisation de construire il faut nga dem euh, urbanisme ku demul urbanisme demul fenn xëy suba rek gis benn ruq rek nga ne naa ko tabax tabax ci kaw tali bi jóob bu ko fa fekkee da koy dindi parce que bu ma ñu fàtta tali bi bu ëllëgee les populations ne seront pas en loolu je pense que c'est clair. non mu dess ben kété muy zone de recasement bi nek juste après Darou salam digganteem ak Kër Ndiopol ñu doon fa wa ko njàkk. moom itam fan yee passé yëkkati nañu ay cadeau rawati ñi nga xamanté ne dañ fa jëndoon ay terrain. ki moy e dossier bi ngay wax collectif des impactés de la zone de recasement. do la mo nek ni dossier baa ngi préparer na dossier bi ba paré le dossier est là préparer ba mu jeex tak mais zone de recasement FDV moo koy gérer mairie gérer wu comme FDV moo koy gérer nag da ngay jël dossier bi transmettre ko FDV pour ñom ñu mun ko jël encore c'est ce que j'ai fait bu mané xaral dañ ko réglé amul problème légui war naa dañante ak wa FDV parce que wax nañ ko après dañuy ñëw fi pour ñu tok pour ñu waxtaan bu ñu ñëwee waxtaan ñu poser les problèmes ils sont 83 personnes mi ngi nii seen dossier ñi ngi nii individuel kenn par kenn. lii moo nekk nii ñi dafa amoon acte de vente ainsi de suite lii ay dossiers yi mooy fekk la mais defar naa ko ba pare amul leen leneen lu ma si mën léegi damay xaaral waaye bu bu ñëwee bu boobaa ñu traité kon nag Diop fan na duggee ci suuf je veux que ça c'est ba dama bëgg nit ñi rek xam ni ka nit ku nekk looy def def ko nga ñeme li ngay def lan la boo ko ragalee boo liggéey moo lay gaañ lii moom mooy dossier FDV kon tey am nañ ñëpp. amu leen wax ngeen dossier FDB wax naa leen wax ngeen yaay jin wax naa leen wax ngeen toor wax naa leen ku ñooñu ci kaw tali lañ tabax mooy deux voies yi def deux voies yi def ñoom dañoo dagoon tali bi yéeg ci kaw deux voies bi ma dagg ko ma dindi ko ndax tali la tali moom ku si tabax dama koy dindi parce que amuloo kayit même bu la bu fekkee da nga am problème ci kii yow dama ci ci ki la jaay on est ouvert nag pour régler les problèmes fii am na beneen dossier il y a quatre vingt dossiers de réclamation anañu yaa a quatre-vingt-cinq dossiers de réclamation am na ay réclamation ñoo xam ne dañ leen jaay ba pare te liñ leen jaay baaxul wala liñ leen jaay faux la wala liñ leen jaay dañ ko trafiqué dama leen indi leen ñu ut solution kon kay man solution rek laa fi nekkee man néew ma fi pour indi problème je suis là pour amener des solution néew ma fi pour indi ay ay problème Mourchid FM Mourchid Murmur Murşit FM. Murmur Murşit FM.